yoo de Ousmane ngi ñëw. Ayibo ayibo Sonko naa ko aussi. Ousmane nga ak benn vision génne corruption fan su ko aussi. Ousmane Félix suñu solution. Un jeune diplômé avec de pleines ambitions. Un nouveau Sénégal, Ousmane est la solution. Le pays réclame un nouveau renouveau total de changement. Toute la jeunesse sénégalaise. Madame Touré ak Madické Ngom ñoom ñoo jur ñoo jur Mamadou Ngom Mamadou Ngom. soxnaam su jëkk doon xadi jaxate moo jur mati ngom Mamadou Ngom ñaareelu soxnaam dool uli moto sow ca penda euh, njaayeen ca fuuta ñoom ñoo jur xadi ngom ak biti ndoxo ngom xadi ngom mii moom moo jur Ousmane Sonko donc sunu mbër dafa laal ci Sénégal yépp donc di ñaan yàlla yàlla jàppale ko Je voudrais juste dire à cette population de Gandon, à cette population de Nguingila, vous êtes entrés de plein pied dans l'histoire du passé ici au Sénégal, mais en général dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. Quand on parle de passé ici au Sénégal et à l'international et un peu partout dans le monde, nous parlons évidemment du président Ousmane Sonko, qui est un homme complet de par ses sources. Ceux qui connaissent bien l'histoire de Ngengila, s'il y en a ceux qui doutent encore ou ceux qui ne connaissent pas encore, ils n'ont qu'à aller interroger les annales de l'histoire de, euh, de Louis J'ai tout à l'heure dit que nous avons un homme complet. Euh, il y avait tout à l'heure un sage du village qui a fait son historique en parlant de ses origines du côté paternel du côté maternel. Vous voyez qu'il avait beaucoup cité jusqu'à toucher l'imam Rawan Ngom. Mes chers parents, si nous ratons aujourd'hui, nous ratons aujourd'hui de concrétiser l'histoire politique du Sénégal, de confier ce pays à cet homme qui va désormais l'inscrire dans les annales du développement de ce pays et de ce continent je vous dis que nous allons retourner encore au Moyen Âge. Et personne parmi nous n'est là pour retourner dans ces, ces fameuses histoires. Donc, sama maam nag mi jur sama yaay yaay mi ngi juddoo jam jam maam mi juddoo ngeer màndaax muy am mint saar mint sar fari njaay di yaayam fari njaay kiloor njaay di yaayam kiloor njaay xam du jama njaay ma xare way ci Guinée Bissau ñoo bokk bi ñoo Amadou Gurène xëy mu doon yónni ngelaw di waxtaane jinne yi moy borom sàq bari bala sàq yi jeex tool yi Ousmane bi ma dégg ñu ande yak dina la Ousmane ma mu am te samp nga daara ma mu mu am rek ba sama ndjay mo ci mujj dee barki dem mo ndjay presque amna 100 ans Ousmane ma tubaarikàlla duma ko wax len duma ko cat duma eh, sama cat ak sama mo lo 12e grand-mère 12e grand-mère et parti de suicide collectif des femmes de Nder man nag dubaari kàll fii rek laa yem tey sama doom ji def ma doon tere sax ni ma bul waxati la a ma wéruloo man ko wéru ma waaye nag doom ji bon nga xam ne daf laa teg place Ousmane maam moom université moom ba mu am élan bu dikk fekk mu ma def amul ah man de at bi naa élan mais may wax ñi nga xamante ni ñoo jiite mouvement bii ñu wax mouvement ànd dooleel la président Ousmane Sonko de Ngigalax kani fu ngeen teg mouvement bi ci lu rëy jàpp leen ni waa mbokki Pastef yi ngeen fekk fii Pastef Saint-Louis Pastef département bi yëpp teg nañ fa lu ko raw mouvement bi mi ngi ci biir Pastef Pastef mi ngi ci biir mouvement bi nekk nu ñaar waaye benn la loolu nag li muy tekki mooy dafa nekk un plus un gros plus boo xamante ni mouvement bi da koy indi ci doxalinu Pastef particulièrement département de Saint-Louis bi nga xamante ni fi ngeen jële seen yitte monte café avec le village de Ngigalax l'arrondissement de Raw la commune de Gandok ñu leen ci gërëm di leen sant bu parce que mouvement a am plus de 100 membres mouvement bu yemul Ngigalax rek du na Raw dugg na Gandok dugg Saint-Louis dem Sénégal dem ba diaspora le du mouvement cooma wala mouvement altopé waaye mouvement dolli la moo tax dañ leen di gërëm bu baax ci dolli bi ngeen nar a dolli ci doxalinu Pastef te incha allah daan ko ressentir bu baax. lii Ousmane wax te ñun ñu fekk ñu ci Pastef ñu yëngu parce que nag bu leen foog ni danoo ñëw nag ni ah Sonko lañu ñu bokkal rek kon on on accepte le projet ah ah fii la plupart des membres danoo nekk ci Pastef di yëngu. projet bi ñu ñu convaincre ñu nekk si daw ba mbokk gi fekk si ci actuellement kuy mbokkam ànd nga ak moom ku dul mbokkam ànd nga ak moom te pour dalal xelu ñépp Ousmane jiitalul mbokk jiitalul xeet jiit Sénégal la jiital projet bi la jiital et le don de soi te képp kuy ànd ak moom boo yeboo xam li

à Grenoble laa jóge di milité ji ba dem ba Lyon à 100 kilomètres ma nekk say kërti kërti ba bi ma ñibbisee Sénégal dama ne bu soobee yàlla damay toog ba gis Pastef rek waaw li yàllay def c'était juste avant les élections ma tëju sama kër Betty Ngom ñëw sonné ni dafay parrainé man ko ah d'accord parce que boobu gis naa nit ñu bari di wut parrainage ma tey sama bopp tok japp sama njaamur gis xam xawma ma fi kenn kuy Pastef mu ne ma man de Ousmane Sonko laay pare na man ko duggal duggal duggal duggal te buntu bi duggal lo la doon wax mu ne ma me yow daba xam nga kuy Ousmane Sonko man ko dedet mu ma Ousmane Sonko di doomu xadi ma bokk xadi ndey ak bay yow Ousmane di sa doom nga nan ma Ousmane Sonko lay te xamoo man ko arab xawma kuy Ousmane Sonko usmaan sama mbokk la mbokk ngi galax jërëjëf. Mm-hmm.